juróom-ñett fukk ak juróom. Yeesu dekki na mbokk mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci leenu ma dellu si tey ngir tegtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu gisoon nanu ni almasi bi yeesu tuure woon deretam ca bant ba ñu ko daajoon ngir fay bàkkaari àddina te ubbil bàkkaarkat yi buntu jàmm ba faw deewug almasi bi ca bant ba mooy xibaar bi gën a am maanaa ci mbind mu sell mépp ndaxte dee googoo tax yàlla mën mënu baal suñu bàkkaar te ba tey dëkk ci njotteem waaye su fekkee ne deewug almasi bi mooy xibaar bi gën a am maanaa li nuy jàng tey mooy xibaar bi gën a neex ndaxte dinanu dégg ni yàlla dekkale yéesu ca néew ya ni nu ko jànge gannaaw ba yeesu saayee ca kaw bant ba kenn ci xarekat ya jël xeej jam ko ci wetu yéesu te ca saasa deret ak ndox di tuuru doon firnde ne yeesu dee na gisoon nanu it ni ku bare alal robe yéesu dugal ko ca bàmmeel bu bees ba mu yetteloon boppam ciw doj noonu mu bërëŋ doj wu mag ca buntu bàmmeel ba dem bu ko defee nag mbind mi nee ba bët setee nag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 maryaama magdala ak maryaama ma ca des dem seeti bàmmeel ba fekk suuf yënguwoon na bu metti ndaxte benn malaakam borom bi wàcc na ci asamaan ñëw bërëng doj wa toog ca kaw melow mel ni melax ay yërem weex tàll ni perkaal ñu doon wattu tiit bay lox daldi mel ni ñu dee naka noonu bi jigéen ña agsee ci sëg yi ñu fekk ñu bërëng doj wa uboon bàmmeel ba ñu dugg ca biir bàmmeel ba waaye fekk ñu fa néewu borom bi yéesu noonu ba ñu nekkee ak seen njaaxle am ñaar ñu leen feeñu sol yére yu weex bay melax jigéen ña am tiitaange ju mag daldi dëpp seen jë ci suuf waaye ñu ne leen lu tax ngeen di seet kiy dund ci biir néew yi nekkatu fi dekki na fàttaliku leen li mu leen waxoon ba mu nekkee galile ne woon na faaw ñu jébbal doomu nit ki bàkkaarkat yi ñu rey ko ci bant mu dekki ca ñetteelu fan ba noonu ñu daldi fàttaliku kàddu yeesu ya bi ñu jógee bàmmeel ba ñu dem nettali ji loolu lépp fukki ndaw ya ak benn ak ña ca des ñépp jigéen ñooñoo doon maryaama magdala sànn ak maryaama yaayu saak yeneen jigéen yi leen gunge woon itam nettali loola ndaw ya waaye ñu teg wax jooju ay janeer ba gëmuñu jigéen ñooñu ndaxte taalibe yi xamaguñu woon bind yonent yi doon wone ne yeesu dafa wara dekki waaye piyeer di jóg daw dem ca bàmmeel ba bi mu agsee mu sëgg yër gisul lu dul càngaay la noonu mu dëpp ñibbi jaaxle lool ci li xew ca bés booba ñaar ci taalibe yeesu yi di dem ca dëkku emawus te mu sore yerusalem lu mat fukki ñuy waxtaana li xewoon lépp bi ñuy waxtaan ak a sottante xalaat yeesu ci boppam dab leen ànd ak ñoom fekk seeni bët muuru ba mënuñu ko woon a xàmmee yeesu ne leen lan ngeen di waxtaane nii ci yoon wi noonu ñu taxaw seen xool jeex kenn ci ñoom ki tudd kleyopas ne ko xanaa yow rekk yaa ñëw yerusalem te umple li fi xewoon ci fan yi yéesu ne leen lu fi xew ñu tontu ko ne mbirum yéesum nasaret ab yonent la woon bu doon def ay jëf yu mag di wax ay kàddu yu am doole ci kanamu nit ñi ak ca kanamu yàlla waaye sunuy sëriñ su mag ak sunuy njiit ñoo ko jëbal nguur gi ngir ñu ateko ko teg ko dee ba daaj ko ci bant nun nag danaaw yaakaaroon ne mooy ki war a e, jot israel waaye bi loolu xewee ak léegi tey la ñetteelu fan bi teewul nag am na ay jigéen yu bokk ci nun yu nu jaaxal dañoo fajaru ca bàmmeel ba waaye fekk ñu fa néewam ñu dellusi nettali nu ne ay malaaka feeñu nañu leen yëgal leen ne mu ngiy dund ñenn ci suñu àndandoo yi dem nañu ca bàmmeel ba fekk lépp mel na ko jigéen ña waxe woon waaye moom gisuñu ko noonu yéesu ne leen yéen daal yéen ñàkk xel te seen xol yéex a gëm li yonent yi yëgle woon xanaa du almasi bi dafa waroon a daj boobu coono te dugg ci ndamam noonu mu tàmbalee ci yonent yàlla musa ba ci yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram bi ñuy jub dëkk ba ñu jëmoon nag yeesu def ni kuy jubal yoonam waaye ñu téye ko ne ko toogal fii ci nun ndaxte jant baa ngiy so te léegi mu guddi noonu mu dugg toog ca ñoom bi ñu tàmbalee di reer yéesu jël mburu ma gërëm yàlla ba noppi damm ko jox leen ko bi mu defee loolu lépp leer ci seeni bët ñu daldi ko xàmmee waaye yeesu ne mes gisatuñu ko noonu ku nekk naan sa moroom ndax sa xol seddul woon bi muy wax ak nun ci yoon wi tey tekki mbind mi ñu daldi jóg ca saasa dellu yerusalem fekk fa taalibe ya ñooñu ne leen dëgg la boroom bi dekki na te feeñu na simon ñaari taalibe yi ñoom it daldi leen nettali la xewoon ca yoon wa ak ni ñu xàmmee yeesu bi mu dammee mburu ma bi ñaari taalibe ya dee wax noonu yeesu taxaw moom ci boppam ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen ñu daldi tiit foog ne dañoo gis njuuma waaye yeesu ne leen lu tax ngeen jaaxle ak lu tax ngeen di xel ñaar ci seen xol xool leen samay loxo ak samay tànk man mii la laal leen ma te xam njuuma amul yaram wala ay yax ni ngeen ko gise ma am ko bi mu leen waxee loolu mu won leen ay loxoom ak ay tànkam waaye ba tey mënuñu woon a gëm ndax seen mbég ak seen jaaxle noonu yéesu laaj leen ne ndax am ngeen fii lu ñu lekk ñu jox ko dogu jën wu ñu lakk mu jël ko lekk ci seen kanam noonu mu ne leen bi ma nekkee ak yéen waxoon naa leen baat yi li ñu bind lépp ci samay mbir ci yoonu muusa ak ci téere yonent yi ak ci sabuur dafa wara am noonu mu ubbi seen xel ngir ñu xam li mbind mi di wax mu ne leen faawu almasi bi sonn mu deeta dekk ca ñetteelu fan ba ni ñu ko binde te it ñu yëgle xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañu tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen yéenay samay seede fekk na toma mi bokk ci fukki taalibe ak ñaar nekk fa woon bi yeesu ñëwee yeneen taalibe na ko gis nanu borom bi waaye mu ne leen su ma gisul fa ñu daajoon pont ya ci ay loxoom te defuma ca sama baaraam su ma tegul it sama loxo ci wetam duma ko gëm mukk bi ñu ca tegee ay bés taalibe yeesu ya dajawaat ca biir kër ga tomaa itam a nga fa woon bunt yépp tëju woon nañu waaye yeesu ne tëll ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen noonu mu ne tomaa indil sa baaraam fii te seet sama loxo indil sa loxo teg ko ci sama wet bàyyil di weddi te nga gëm toma tontu ko ne sama boroom sama yàlla yéesu ne ko li nga ma gis a tax nga gëm ki bég mooy ki gëm te gisu ma yeesu wone na it ci kanamu taalibeem ya yeneeni firnde yu ñu nettalewul ci téere bi waaye li ci nekk bind nañu ko ngir ngeen gëm ne yeesu mooy almasi bi doomu yàlla ji te seen ngëm may leen ngeen am ci moom dund gi amin nettali bi nu jàng tey ni mu neexe yéesu dekki na dee mënu ko téye ci ñetteelu fan ba yéesu génn na càngaay la mel ni lëpp lëpp bu génne ci tulli càngaay li rekk a desoon fa mu tëddoon borom bi yeesu kirist dekki na ciw yaram wu ànd ak ndam mu dëppook yaram wi képp ku ko gëm nara am benn bés looloo tax mbind mi ne kirist dekki na di ku jëkka dekki ni gub yi ñuy jëkka tànne ci ngóob mi jagleel leen yàlla gannaaw ci nit la dee jaar dugg ci àddina kon it ci nit la ndekkite liy jaar kon ni ñépp deewe ci seen bokk ci aadama noonu la ñépp di dundaate ci seen bokk ci kirist ndekkitel yeesu dafay firndeel ne mooy ki mu doon jiiñ boppam ndax mën ngeen a fàttaliku yéesu ni mu waxe woon ne bu leen jàq man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo deewee it dinga dund yéesu dige woon na jox dund gu dul jeex képp ku ko gëm waaye su nootul woon dee moom ci boppam nan la mënoon a musale ñeneen ñi ci dooley dee ak bàkkaar ak safara ci misaal dafa mel ni xale bu fo ci duusi tefesu géej gi ci saa si am korong bu am doole bu ñëw yóbbu ko ca biir géej ga mu jéem ba sonn mënula dellusi ci tefes gi xam ngeen ne kooku su amul ku ko wàllu dafay de am benn waay nag ci tefes gi mu séen xale bi mu yuuxu mu ne ko bul ragal dara dinaa la musal si noonu waa ji daldi soobu ci géej gi féey ba àgg ca xale ba waaye ndeysaan korong bi ëpp ko doole moom ak xale bi ñu labandoo waa ji amoon na yéeney wàllu xale bi wante amul woon kàttan gu mu yeggalee yéeneem korongu géej gi moo ko ëpp doole naka noonu dañuy faral a dégg ñoo xam ne dañuy teg seen bopp ay musalkat naan nit ñi topp leen ma te wóolu ma rekk te dingeen texe waaye ñiy wax loolu mënuñu def li ñuy dige mënuñu sax musal seen bopp ndaxte dañu ñàkk doole ngir noot dooley dee ak bàkkaar ni seeni moroom kàttanu dee moo sut seen bos ndax bu ñu deewee des na leen suul ñu yàqu ca biir bàmmeel ba waaye demewul noonu ak almasi bi yeesu moom deena ni sarax suy dindi bàkkaar ñu suul ko te ci ñetteelu fan ba nag mu génn bàmmeel ba musula am ci biir yonent yi ku dee ñu suul ko te mu daldi génn bàmmeel ba dekki waaye almasi bi yeesu loolu la defoon nag moo daan dee ak bàmmeel ba noot na bàkkaar ak seytaane ak barsàq te li gën a neex ci loolu lépp mooy képp ku gëm xibaar bu baax boobu jëm ci deewu kirist ak ndekkiteem dinga bokk ci ndamam ba faw moom la borom bi yeesu wax euh, gannaaw ba mu dekkee naan bul ragal dara maay ki jëkk te maay mujj maay aji kiy dund dee woon naa waaye maa ngi di dund ba faaw yor caabi dee ak ju sàq yàlla dekkal na yéesu ngir nga mën a xam bu wóor ne mooy musalkat bi ak àttekatu àddina bi yàlla fal loolu la mbind mi wax bi mu naan mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu wara mucce ndaxte yàlla sàkk na bés bu muy àtte àddina ci njub dénk ko nit ki mu tànn te firndeel na loolu bu wóor ci limu ko dekkal ca néew ya waaye soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc amin jërë ngeen jëf ci déglu bi bu soobee yàlla ci njàng mi ñëw dinañu wey ci liñ linjiil ba gis ni borom bi yéesu yéege woon asamaan gannaaw ba mu feeñoo ay taalibeem diirub ñeent fukki fan di leen won ay firnde yu bare te wér ne mu ngiy dund yàlla na leen yàlla barkeel te leeral leen ci lépp li ngeen dégg tey te nangeen xalaat bu baax ci li mbind mu sell mi wax bi mu naan yàlla jébbale na yéesu sunu boroom ngir sunuy tooñ tekkal ko ngir àtte nu jub